bismillaahi ma jóg taalifaat ci sun biir taalif ci mbiru sëy baax na lool ci sun biir ku mu neex nga pare koo xam ne tey nga bég lool ku mu naqari na nga muñ xam ne tey nga xët lool sëy de ñaara ko yor yàlla buru ñetteel leen jëkkër jabar ñuy ñaar yàlla buru ñetteel leen jëkkër waree fam nay mu muñu naqar ci biiru sëy dundal ko woddu dëkkal ko ak dëkku ci biiru sëy su la jabar laaj soo su la jabar laajee soo amee joxel gaaw loxo su la jabar laajee soo amee joxel gaaw jëkkër ji su la jabar laajee soo amee joxel gaaw su fekkee la mu laaj war na nang ko jox gaaw bu bu mu seer seer itam joxel gaaw oh, walaay bu laajee dépense oh, soo amee a nga yitee oh, lu la mën di naqari woo kër ga àgg tee soo waxee ba mut soo tiwul defal nii demal seeti kilifaam yoon wi moo di manqué tax ngeen jëlee ko kër baay xelu mu manqué tax ngeen jëlee ko kër baay yore jabar waru laa tax nga foog ne yaay seef loxo yi yore jabar waru laa tax nga foog ne yaay seef wallaay ni jabar warula tax nga foog ne yaay seex ba ngay ngoro lu mu wax yan ko naa yaway seex joxe guro te naa ci yàlla bun ko delloo bu sëy see na nga muñ li na ngeen ci booloo bu ko saaga bu ko dóor bul di xaas ci mbooloo bu ko saaga bu ko dóor bul